nuy ñaan rekk ku ko mën te dafa jafe nga yar sa bopp bañ a bàyyi keneen yar la xanaa yow nga yar sa bopp ndax réew mi discipline daf fi jafe te discipline mooy defar àdduna loolu la yàlla dogal danga koy gis fu ne fu nekk nga koy gisee ñu bàyyi ci xel